رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام السرين لي نيوات بن اليوم di nuyu mbolem kilifa yi nga xamne ñi ngi and ak yow ci liggéey bi ak mbolem ñi nga xamne uy si nañ liggéey bii nuyoo boo xam ne nuyoo ndokkeel la parce que mënuñoo ñàkk di dajee waaye mënuñoo garanti ne bët bu set mën nañoo dajee daje bu mel nii dajee boo xam ne ñu koy dajee pour teeru si juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne يا الله وحنك ونك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يونيهن لا لما ينك يرمان نهال أدنى يب كن بس بو بكو أدنى خمون دهن نجل رك موكو ورفت واي كيب كي دنش أدنى رك وانكو كوفت ونخ يرمان لا نهال بس بو خمنا خليفة شيخ أحمد السجاني إبراهيم يس moo ko oote pour dekkal sunna soo xam ne bàyyi moo Cheikh Ibrahim radiallahu anhu moo ko doon def ay xalifaam ci gannaawam di ko def ba tey jii mu ànd ak i rakkam ak i muqaddamam ñiy dekkalaat bés boobu nga xam ne li ci ëpp solo pour ñu mën ko cee jëlee moo ñi delluwaat ci gëm yàlla dëgg-dëgg gëm yàlla li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa xamal nañu ne ñett kum nekk ci yow rek gëm nga yàlla insaafu min nafsika wa basdu salaami lil aalami wal infaaqu fi l ixtaari nangu dëgg doonte ci sa kaw la jëm waaye jox àddina yépp jàmm waaye di dundale tim doonte boo nekkee ci jafe-jafe la bési gàmmu occasion la pour ñu delluwaat ci jàngat yooyu looloo taxoon mag ñi nekk ci looloo taxoon Mawlana Cheikh Ibrahim nekk ci bés boo xam ne moom ci boppam ay weer la koy pare pare pour jox nit ñépp juddu yonantu ak jaaruwaayam sallallahu alayhi wa sallam ak jaariwaayi sahabaam ridwanullahi alayhim ajmain ak jaariwaayi salafu saalih ba nga xam ne képp ku miin jotaay yooyu boo jàngut benn téere mën ngaa xam juddug yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mën ngaa xam dundam te loo ci xam mu yokk la mbëggeel te su sa mbëggeel nu mu yokkee ci moom rek sa lislaam gën a wér kon monsieur le ministre ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ndokkeel ndokkeel boo xam ne dafay dalee ci yow wàcc ci ñi nga ànd ak di liggéey liggéey bi waaye dalee ci yow yéeg nag ba ci président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne lii yépp gannaaw yàlla ay dénkaaneem la ni ngeen di taxawee ci kër diine yépp ci xew-xew yu mel nii ñu dañoo am mbégte ci lépp lañ am mbégte ndax ñun ñépp benn lañ ay jullit lañ yoo xam ne lislaam du wér lu may li yonentu bi sallallahu alayhi la sallam wax laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi kenn ci yéen du gëm lu may ba mbëggalee mbokkam lu mbëggal boppam gàmmu li ci nekk ci ay njëriñ dëgg-dëgg kenn mënu koo lim waaye Cheikh Ibrahima radiallahu nag mbëggeelam ci yonantu dafa àggoon mu dem ba wax ne xaali ma al mustafa la aqla yudrikuhu sala alayhi ilaahi munzilil bi sama xaal ak yonantu bi salallahu alayhi wa xel xel rek mënu koo xam mu julli ci yonantu boobu salallahu alayhi wa kon bu ootee oote bii nga xam ne ba mu ko daan ootee dafa wax ne maa ngi oo àddina yëpp dëgg-dëgg àddina yëpp wis nañ ko waaye képp koo xam ne yàlla dimbale na ba nga bokk ci ñuy dimbale oote boobu lépp lu yàlla fay Cheikh Ibrahim daan la ko fay damay wax ne bëkk néeg bi taxaw ci buntu sëriñ bi ba tax sëriñ bi mën a tal jàng mën a tal jaamu yàlla bu génnee wax xam-xam dana ci am cër bu génnee ñaan mu nangu dana ci am cër kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk joxu leen ko seen bopp yàlla moo leen tànn jox leen ko mu nekk loo xam ne nii ah, nattub jàmm la ndax xéewal la boo xam ne yàllaa ngi seet jàmm bi lan la ci def dëgg-dëgg masu leen dëñ di encore accompagner jotaay mbooloo yi jotaay yi xam-xam yi jotaay yi diine yi te buñ seetloo ñun ñépp amul benn rëcc boo xam ne nii mas nañ koo amee ci feetal gàmmu ak feetal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal xam-xam ak leela ñam ak teeru ay gan sax yi nga xam ne ñoo war a ñëw ci ci bés yi euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo doon liggéey ci lii muy komaaf ci njiital Cheikh Ibrahim Mamoun waaye mu ànd ay baayam Cheikh Mouhamadul na jiite Ansaaruddin ànd ak rakkam Seydi Siraaji Diin ak seeni jarbaat ak seeni mag ak seeni rak ak Cheikh Boubacar doomi xalifa bi nit du gërëm boppam waaye kilifa gi sëriñ bi mu ngi leen di gërëm waaye yéen monsieur ministre sëriñ bi mu nga ca Paris waaye mu ngi itteewoo lii démb lañ mu wax ci lii mu ngi leen di ñaanal mu ngi ñaanal président mu ngi ñaanal gouverneur waaye mu ngi ñaanal ñi nga xam ne tim ñooy loxo yi nga xam ne ñoo ànd ak yow pour nga mën a def liggéey bi mu mat ni mu gën a rafetee ñu ngi teeru weer woo xam ne weeru kontaante la ndax loolu la suñ sëriñ wax yu yuhayyiju ashwaaqi hilaalu rabiihi fa fiihi tunaadi bi sururi awaatifu mu ne sama mbëggeel ci yontu dafa sax waaye nag bu weer bi juddu bu teroo sama mbëggeel dafay jéqeeku dafay uññeeku dafay beesaat ndax haatifi rabbaani li nga xam ne mooy oote jugee ci pay yàlla bi ñi mën a dégg baatin di ko dégg yépp mu leen di wax ne na ngeen pare pour gàttandu weer wi nga xam ne weeru kontaante la weeru ngëneel la weeru barke la masu ñoo texee di ci gàmmu te gis nañ dëkk yi ñuy wër ñi ci gën a am problème problème yooyu ñu koy sos foo leen fekk dóor nit ñuy gàmm kon nag bu bu dogutoon lu may loolu ngir bëgg am jàmm jar na ko waaye ëpp na loolu ndax danañ ci jaaree pour man cee amee yàlla te ko am yàlla da nga am àddina da nga am alaxira yàlla nañ yàlla defal ñu dugg ci gàmm gi ci jàmm génn ci ci jàmm gan ñi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm jàmm ji ñu fekkoon ñu yokk ko waaye bu ci dara wàññeeku yàlla baaxee ñu ba nga xam ne ñun duñ yàq gàmmu waaye gàmmu tim du yàqoo ci ñun ñun tim duñ yàqu ci gàmmu waaye gàmmu tim du yàqoo ci ñun ñu génn ci nekk Sénégal boo xam ne dafay euh, kaweaat jëm ca kanam président yàlla defal ko tawfiq bu ëpp bi nga xam ne moom ci boppam moom la yaakaar ci boppam ndax ndollal buy jugee ci yàlla dafay ëpp cosaan li nga xam ne moom la la yàlla mayoon te loolu yàlla mën na ko mayee ci barke gàmmu ak barke liggéeyal gàmmukat yi ak barke liggéeyal jullit yi ak barke ganale gan ñi ngi euh, oo ñëpp rek ci li nga xam ne dëgg-dëgg monsieur le ministre wane na ko ndax képp koo xam ne dénk nañ la benn secteur topp na la soñju la ci li nga xam ne moom lañ la dénk nga war cee taxaw ci wàllu gàmmu gi ñu ngi koy dénk tim képp koo xam ne nii mu ñuy dégg ñi xam ne gan ñi gan yonentu yàlla muhammad lañ sallallahu alayhi wa sallam waaye gan ñi gani senegal lañ ñun ñëpp ñu lal suñuy xol teeru leen ci mbëggeel ak liggéeyal leen nga xam ne dañ ci amee ngërmande yàlla waaye buñ delloo tim dañ nekk nettali bu rafet pour Sénégal yàlla na yàlla may ñu loolu yàlla na yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew jàmm joo xam ne dañ xam ne jàmm la def ko ci mbooleem réewu aalamil islaami bi jaahi rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliqat